salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd euh, gisee ak ndax xam ngeen nag ñun waa Dakar Net euh, faral dem di seeti ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu ñaan ndax dañu respecté ñi nga xamante ni mooy suñuy mbokk internet waaye tey nag dañu ko def ngir jàppale suñu mbokk internet mais également ngir xamal leen ak ki nga xamante ni xam-xamam dafa màcc loolu jëm ci wàllu seet ak wàllu ñaan du ñu sori ci waxtaan bi dañu koy nuyu bàyyi ku muy niroog mbokk internet yi Dakar Net Eh, di soxna yaa Seyda Aram Diouf ñu koy ziar baax baax di ko nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu àdduna international ndaxte man su ma neexee ma nuyu àdduna international ndax fu nekk la ma nit di woowee. kon nag eh, maa ngi masow ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci biir réew mi ak eh, ñi nga xam ne ñu ngi yëkk ndox mi ci seen biir kër yi di leen masawu di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla génnee ci situation yooyu ñu nekk. waaye di nuyu sama ay clients yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal euh, atum naataange te yàlla musal ñu ci njàqare waaye yàlla tamit nañu musal ci lépp loo xam ne dafay lore dëkk bi nag yëngatu na waaye yàlla na yàlla sotti fi dal ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. alors euh, yaa Seyda ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo ba pare alors dañu waxtaan ci euh, wàllu seet. déjà bala ñuy dugg ci waxtaan bi dëgg-dëgg dañu bëgg a xam seet bi wàllu seet bi ak kañ la dugg. waaw seet nag euh, su ma neexee ma ne liggéeyu sëriñ moom dama ko doon ci sama ay maam ndax soo demee fa ma dëkk sama maam yëpp macha allah ay ñaankat la ñoon ñii ay jàngalekatu alxuraan lañoon ñii ci lasaraar lañ doon yëngu am naa ay mag yoo xam ne tamit ñu ngi yëngatu ci lasaraar seet pettaaw nag moom su ma neexee ma ne jagle laa ci am. ndax donneewu ma ko ci kenn jàngeewu ma ko ci kenn tamit yàlla moom ma ci may ma di ci seet am naa nag yeneen xeetu seet mooy di may seet ci ramlu waaye tamit damay seet ci tomb ku nekk client bu la woo rek macha allah taalibe yi lay woo yëpp ku nekk daf lay wax seet bu mu bëgg nga seetalee ko ko kon pettaaw nag moom laa gën a maîtriser parce que ci laa gën a yàgg ndax bu may ndaw ba léegi macha allah ay 9 ans ba 18 ans maa ngi seetee xotti gerte. bi ma amee 32 ans laa commencé CTP taw mu ma fekk Mauritanie 2016 2017 ba deux 2018 ba 2021 bi ñu nekk tey maa ngi seetee pettaaw kon pettaaw moom macha allah maîtriser naa ko bu baax a baax euh, am na tamit lu ñu ci yàlla may du lépp nag la ñu yàlla di may ndax yàlla mayewul lépp kon nag euh, seet mooy buntu ñaan ak xeet bu mu mën a doon ak noo ko mën a seetee waaye képp koo xam ne da ngay fëgg buntu ñaan daal il faut nga consulter mooy nga xool nit kii situation ak biddiwam fan la taxawee nga soog koo mën a ñaanal kon loolu mooy seet. alors euh, seet mooy buntu ñaan est-ce que da ngay yëngu ci wàllu ñaan. waaw ñaan tamit dama ci yëngu. Hmm. ndax léeg-léeg nit am ay problème am nga seetal ko du sarax rek mooy dindi ay mbiram. Hmm. di nga def ay sacrifice waaye nag di nga ñaan yàlla tamit. ñaan yàlla nag mën na nekk bind sangu mën na nekk bind naan mën na nekk tamit loo xam ne dafay boole ay nit lépp loo xam ne daal man dafay boole ay nit man dama ciy yëngatu lépp loo xam ne day tàqale nag du ma ci dugal sama loxo bi ndax damay wax ne mystique nu mu amee bu baax noonu la amee bu bon kaay ma defal la nangam jooni jooni nga gis ko it damay wax ne man boobu amuma ko parce que fi ma dëkk ma ak sama njabootu fi dëkk ak sama borom kër te bëgg naa ku ma woo téléphone muy sama ñaari numéro téléphone yi nga xam ne 2014 euh, laa ko amoon ba tey moom laay wuyoo te ku ma woo ma wuyu la ku ma envoyé message ma liir la ragaluma génn fenn it fréquenté ak nit yi kon sooy wax nit ñi danga leen di wax loo xamante ni moo fi nekk moo di ne yàlla jagleel na la secret boo xam ne yaa ngi koy ñaanee wante yàlla sunu borom mooy nangu ñaan mun nga am fukki clients yu ñëw ci yow nga ne ñaanal juróom-ñeent yëpp mu nangu benn bi du nangu loolu day am pare yenn saa yi nit ki yàlla du leen boole wala du dëppale seen seeni biddiw moo tax su ma gisee ku toog si internet bi ne man damay ñaan jooni jooni léegi léegi nga koy gis waxuma ne amul nag ndaxte yàlla moom dafay maye wante ñuy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ñaan yàlla nag lu am la parce que secret yi fi maami bàyyoon ba léegi mi ngi fi soo demee ci ñeneen ñi sax am na beneen phénomène bu ñu fajee parce que dañ lay tiim di jàng alxuraan wala ñi euh, bindal la saafara jox la ne la demal naan ñun nag am nañ reen ak sunguf parce que reen ak sunguf moo fi njëkkoon avant hôpital di fi am yàlla. lu am la fii ci Sénégal ku koy inkaar rek da ngaa tollagut ci situation ñaan boo déggee mos naa am sama benn xarit mu ne ma man gaw ma benn sëriñ yaa Seydaa ma ne ko waa am nga ci droit ba mu demee ba toll ay kataf torof dem ba aéroport ñu nangu ay bagages muy voyage yi di dem di ñëw ñu nangu ay bagages mu daw ñëw ci mën na ma damaa bëgg nga seetal ma génneel ma sarax ma génneel ko ojo bu ma envoyé woon ne ma gaw ma benn sëriñ <laughs> kon xaalaa kulli ñaan yàlla lu am la ak kan mooy ñaan mooy wax ji. Mm. am na am na am na solo eh, mais dañu gis ni tamit sa clients yi nga xamante ni ñoom ngay faral di recevoir dafa bëri ñi nga xamante ni nekkuñu Sénégal eh, sa digganteeg ak eh, ñu nekkul Sénégal suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Europe di la woo di la contacter sa digganteeg ñoom loo siy wax. waaw loolu nag lu yàgg la parce que man client bitim réew laa njëkk a am kay yu Sénégal ndax bi ma nekkee Mauritanie dama doon liggéey ak benn site internet ñoom ñoom ma njëkk a xam ko Sénégal Sénégal maa ngi fi ñibbi si 2016. 2016 laa fi ñëw ñoom 2018 bi la ñu commencé xam <clears throat> tey clients yi nekk ci biti sax ñoo ma doon boole ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi léegi nag dem nañ ba xam kan mooy yaa Seyda ba foo dëkk sax da naan la yaa Seyda fee la dëkk loolu nag yàlla moo koy may ku ko neex te ñu ngi ñaan yàlla may googu mu ñu may yàlla na sax gën a leeral xam-xam bi waaye gën koo setal incha allahu taala. Mm. am na am na am na am solo mais li ma bëggoon wax tamit dafa dafay au delà ñaan bi ngay def nga yor ay produits yoo xamante ni da ngay jàppale euh, sa jigéen ñi ñi nga xamante ni bu ñuy sëy dañu am dañuy du ñu am yëg bànneex ak yooyu produit yooyu loo si wax ak yenn ak nga si yor. waaw produit yooyu am na fi. mooy jigéen boo xam ne dafay sëy ak borom këram wante du yëg bànneex moo di ne da koy jël kuddu kafe rek lay jël chaque 18 heures ci ngoon mu di ko lekk euh, bio yi nag nu ñu ko defaree lépp dafa naturel moo di ne lépp lu ñu ko defaree ci Sénégal gi fi la meññee. moo xam sunguf la moo xam ay doom la moo xam lu mën a doon waaye Sénégal lañ ko jëlee reen yeeg sunguf yëpp euh, soo ko soo koy faral di ko lekk dina la may ngay bëgg sëy ak sa borom kër wala tamit soo sëyeeg moom tamit di nga yëg bànneex bu baax kooku nag euh, produit bi moo ngi ci ñun disponible ne ko képp koo xamante ni bëgg nga ci boo ñu contacter ci suñu numéro téléphone bi incha allah taala dinañ la ko livrer ak foo mën a nekk. Mm. am nañ tamit boo xamante ni pour ngóora la. Mm. koo xam ne du yëg boppam moom tam ba tey am nañ ci produit am nañ ci reen ñi fi yàgg di ñëw xam nañ ko bu baax parce que yàgg nañoo jël reen bi reen bi nag dañ koy gas àllu saalum la ñu dem uti ko bu ñëwee dañ la koy jox nga di ko naan parce que reen suñ ko defee sunguf soo ko lekkee du rees. kon kiy defar garab wolof it war na ko maîtriser bu baax am nañ si boo xam ne tamit comme genre euh, kii lay nekk lem lañ ko defaree moom tam ba tey danga koy lekk kuddu café nga koy jël tamit mun na ànd ak benn transu limon ak euh, ndox bu tàng nga boolante ko nga naan ko moom tamit amul benn euh, effet boo xam ne dina yàq dara ci sa biir yaram am nañ boo xam ne tamit ndoxu siti la koo xam ne say wee day ñuul wala sa yaram dafay xasan wala dafay am ay picc boobu nag comme genre lipton lañ ko defaree da ngay jël benn lipton rek benn sachet bi rek nga def ko ci ndox soo ko defee ci ndox def ci ndox bu tàng bàyyi ko ba mu yàbbi nga naan ko ndoxu siti bu mu fekk ci sa yaram dina ko faj parce que ndoxu siti moo jur mbooleem jàngoro yi moom moo jur hémorroïde moo jur euh, mbooleem feebar yoo xamante ni dafay ànd ak gémmiñ guy xeeñ wala euh, yaram boo xam ne dafa am odeur. Mm. des fois nga dugg ci biis yi wala dara am koo xam ne bu yëkkatee yaramam dafay xeeñ xet goo xam ne dalay leer leer yàlla ne kii sangu na laal na parfum waaye am na yaram mm-hmm. loolu ndoxu siti moo koy def kon garab bi tamit disponible na ku ko bëgg mu ngi fii ci euh, parcelle unité 25. Hmm. parcelle unité 25 numéro yaa ngi noonu di affiché ci euh, suuf ecran bi mën ngeen ko woo euh, seeti ko mu daal di leen dimbali ci seen i jàngoro ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy élection locale yi nga xamante ni maanaam daanaka egsi na yow mi nga xamante ni macha allah da ngay yëngu ci wàllu seet ak gis ban gis-gis nga ci am. waaw élection locale yi nag damay wax ne. Sénégal yépp war nañoo jàpp kurus ñu ñaan parce que phénomène bu nekk di nga ko ci gis dina ci am ñoo xam ne dañ fay jaaree jaxase ay këru diine pour ñuy mbëkkante wala soit ñu jaxasee askan wi ñoom seen bopp ñu am guerre civile ba élection du am wante ñun ñu nga xam ne yàlla sédd nañu kurus sédd nañu ay ñaan ñu ngi ñaan yàlla élection yooyu yàlla na am waaye yàlla na ko yàlla leeral waaye tamit yàlla tegu ci yoonu siraatul mustaqim en même temps tamit Sénégal yàlla sàmmal ko boppam téyel ko boppam parce que Sénégal moom wax dëgg yàlla damay wax ne képp koo xam ne danga ne Sénégal yënguwut wax dëgg danga fay dëkkut Sénégal yëngu na lu fi daanul am moo fi am lu fi am tamit ba tey moo fi am ñu ñaanal suñu mbokku tijaan yeeg suñu mbokku murit yépp yàlla yàlla def si ñoom jàmm def si ñoom ak déggoo ba benn seytaane du mën a dugg seen biir pour jaxase leen waaye dëkk bi moom actuellement ñu toll nii lu ko jaxase yomb na trop te côté bu nekk nag foo ruux rek dafay mel ni euh, bomb la ñu fa teg maanaam diggante ñaari nit yu loon ànd sax lu leen boole léegi dafa yomb seytaane daal mi ngi ci biir Sénégal kon nag seytaane boobu yàlla na ko yàlla tënk te sànnil ñu ko. ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. élection présidentielle yi 2024 yi tamit loo moom la ma waxoon sama vidéo bee passé ki nga xam ne yàlla daf koy farli yàlla wan nañu ko. Mm. yàlla nañu fi fekk nag ñun ñu ci jàmm ak salaam. te ki ñuy yàlla di jox muy falu si suñ 2024 yàlla na nekk président bu gën ci Sénégal su fekkente ne gënu ci Sénégal yàlla na ko yàlla fomm te indi fi keneen. ci barki dina moom sallallahu alayhi wa sallam. mais mën jox benn misaal ci li nga gis. <laughs> wax ne képp koo xamante ni daal bëgg nga ci am lu la leer mën nga ñëw ba sama kër incha allah ñu wax ci bu soobee yàlla. Hmm. kontaan nañu bu baax a baax euh, looy tàggatoo. maa ngi tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo di masawu suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci mbënd mi ndox mi sonal na leen seen président na leen gestu président Sénégal sax laay wax na xam ne moo jaboote ñëpp moom rek moo leen mën a génnee ci mbënn moomu te na leen ci génne ndaxte su defee ay moyen rek incha allahu taala yàlla dina leen fa génnee parce que nag dëkk ak ndox dafa metti mën nga dëkk ak lu nekk ba mu des ndox ndax ndox mi dangaa war a togg da nga war dugg ci duus yi jàpp làpp pour jaamu yàlla te loolu yëpp yaa ngi ci biir ndox ndaxte loo def ci euh, biir kër gi dana la ko delloowaat loolu mooy ndox kon nag nañ leen fexee dimbali génnee leen ci biir ndox mi nga xam ne ñoo ngi ci euh, côté Kër Massar ak euh, euh, defe naa su ma juumul yëmbal Pikine jàmm gën ñooñ nam ñëpp dañoo sonn wax dëgg yàlla boo leen seetaanee si internet bi rek yow sa bopp sax dangay ngay da ngay da ngay am loo yëg parce que doomu bu nekk mu dugg ci biir ndox dafa metti waxantuma laa nga dëkk ak ndox dëkk ak ndox du lu yomb kon nag état boo xam ne yow yaa fi toog muy président bu mën a doon sax wax balaa moo def dara nag gestu ñi nga xamante ni ñoo ngi ci mbiir mën mi parce que bu yàlla ji tawagul lañ leen war mën a dimbali suñu xaaree ba yàlla ji taw loolu kay daanaka mooy fekk koo xam ne mi ngi dee nga di ko suqali wax dëgg yàlla dafa metti kon nañ leen dimbali te yàlla tax génne leen ci ndox mi utal leen feneen foo xam ne mën nañ fa dëkk wala soit ñi dafa leen ay tiwo yoo xam ne mën na yóbbu ndox bi géej pour ñu mën a mucc ci ndox bi ndax kenn ku nekk da nga koy natt ci yow man maa ngi nii macha allah maa ngi parcelle amul ndox wante boo tëddee doo mën a nelaw parce que internet bi mu ngi fi saa boo seetaanee sa mbokk jullit mu nekk ci biir ndox mi rek sa yaram bi dina metti en même temps tamit yow ci sa bopp doo tëddee doo mën a nelaw parce que yaa ngi xalaat ko ci biir ndox mi képp koo xam ne daal gën nga ci ñun yàlla na nga fi toog te mën a dimbale sa askan war nañoo gestu askan wi parce que askan wi sonn nañu waaw salaamaaleykum wa rahmatullah alors lii lañ leen indiloon ci seen émission bi nga xamante ni dañuy faral dem di seeti ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu ñaan tey ñu seet si woon euh, soxna Ya Seyda parcelle unité 25 woo leen ko ci numéro téléphone boobu di affiché ci baaru écran bi boo leen ko woowee di ngeen gis euh, lu am solo li nga xamante ni moom ngeen yëg seen yaram te bëgg mu saafarawu lépp muy wàllu këyit ak wàllu ngóor ak wàllu tukkeek lépp li nga xamante ni aju na si doomu aadama mu soxla ko yàlla may na ko si xam bu wér jaajëf